waaw ci benn bu baax rek. benn bëccëg la benn bëccëg wallaay. bi taal fii otoom. Eh, eh, daal di xiir ci daal xuus ci biir tooki. dem kër Malick si. Eh, boo Abdou Sarr soxnaa ma nga fa. meer um, nduuti. daal bu di jama. boo Samba Yacine moo woon sous bi. déedéet gone yëpp boo juddoo sëñ Moustapha dafa mel ne dafa ànd ak euh, Saalum. ah ñu naan sëñ Moustapha mi ka daa mel dafa ànd ak Saalum. sëñ Abdoul Karam moom Abdou Sarr la ànd bu wér. sëñ sëñ Abdoul Karam moom euh, Saalum la àndal bu wér kéng Abdou Sarr la bu wér kéng. waaw nga xam ne lu amoon la. loolu xam moom loolu amoon la. amul làqatu amul kii wallaay. tekki ci sëñ boo lañ tegoon ci kanam. bañ ko defee. <coughs> bañ ko defee. Saalum Sarr ku yàlla defal ndimbal. Saalum Saalum ku yàlla defal limal la ak xam li ma nekk xam am na sawar faire ne leen gaaw leen ne leen gaaw leen bala moo xat wallaay ku ci gaawut day seen Moustapha mii mu gi mii ma gis bu bu ma yëwén ngeen dem bala bala moo xat wallaay man de maa ko maa ko dégg wallaay wér kee nga wax ñu kees ko bañ gañee mu ñëw ca gaar ba sëñ bi ñëw ca gaar ba kër mba alaaji lay kër ci bitigu alaaji lay saalum soxla señ bi mu sëñ bi doxee ak wet sëñ bi ne xaa saalum ko ah saalum sëñ bi dama mënta liggéey fii te ànduma ak yow ah sëñ bi ne ah loole lu baax la waaw ah, sëñ bi ne ko ah man te mënuma ànd ak yow te demoo sëñ Abdou Karam de fii la ñëw mu sëñ bi fexee wax ak sëñ Abdou Karam ba bu Saalum ñëwee. mu nangul ko li mu bëgg du ko ñàkk teggin. ma ànd bi ànd ak Saalum. ba Saalum am lim bëgg. ba Saalum am lim bëgg. loolu loolu la. loolu politique la. waaye nangul yàlla dogal la. waaye nangul yàlla dogal la. boobaak léegi. boobaak léegi. li ko yàlla dogal. li ko yàlla dogal. Eh, ku ma mos a àndal. ku ma mos àndal. fii gañe rek ngay dégg gañe rek ngay dégg waaw maa ci xam dara wallaay gañe rek ngay dégg moo xam neex na nit ñi mo xam ne neex na nit ñi moo xam naqari na leen moo xam naqari na leen moo xam bëggoon nañ ko xam bëgg nañ ko xam bëgg ñu xam bëgg ñu ko wante carte yi carte yi rek rek fi fi ba tey jii kon loolu kon bu mu yàq dara yàq ci seen politique bi bu mu yàq dara ci seen bokk gi bu mu yàq dara ci seen taalibe gi sëñ bi ne lañ xam ne rek loolu coobare yàlla moom yàq dara ci dëkkandoo ak taali bégeeg lépp bu ci yàq dara fii nu toog nii ginnaaw bu yooyu jàllee Moodu Kan nekk fi Saalum Saar nekk fi Malick Si ne fi sëñ Mor waaw sëñ nekk fi Boubala Ndiaye ñoom nekk fi. Boubala Ndiaye nekk fi. Remo Sarr nekk nekk fi. kilifa yu bari daal kilifa yu baree baree bare nekk fii. fii ñu toog la fii ñu toog la fii waaw. fi lu bari ñu baree baree bare. te booba te booba. buutul Muntaxa mii. boo buutul boo moo moo ëpp at. sëñ bi ne boobu at yii sëñ Muntaxa am amu ko. waaye mu doon rek. wante lu mu doon rek. ñooñu muntu ñooñu sëñ bi tudd ko xam bayaar wala nga xam fii doon nañ fi dara soose ñaa ne fi wallaay soose ñaa mhm. ñëpp ne fi rek wallaay mhm, nga xam ne kër gi ca Omar Bayo ba ci Yuga lu ñuy fas rek dañ koy fase fii loolu sëñ bi nag loolu lu ko jiitu la de waaye li ma fekke waane sëñ bi ne li mu fekkee ñeen fukki at yii ci ginnaawam sëñ bi moo ko téye ci loxoom kum àndal mooy gañe <laughs> mu neex nit ñi mu naqari nit ñi loolu ni sëñ bi ne loolu yoonu yoon yoonam néew ci yàllaa ko def eh, kay bañ loolu daal ba boobu ne kii bañ loolu ba yow nag bu ma nee am xelam. mu bañ a tànn. mu bañ a tànn. waaye ku ma tànn. wante ku mu tànn. mooy wéy mooy